photos, des vidéos. Oui, il fait, il c'est pas bien, c'est pas bien de, genre de, souhaiter du mal à son prochain pour dire que la personne est décédée. et tout. Parce qu'en en fait, pour Maréchaux, c'est dans sa... que déjà série même, qu'elle avait accouché, même c'était dans sa série et tout. Donc, <laughs> là, j'arrive même pas, <laughs> parler. Parce que tellement que ça fait rire. la voix de sans voix yaa ngi gindi ñëpp mu des man xaaral ma génn xam naa balaa ñuy foog ni sa xarit laa te fekk duma sa xarit xamuma la man maa sonn si yow yedd nañ bay bëgg a dee. la voix des sans voix ñoo war a génn wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw nañ wax dugal seen compte yi ay ay ay ay publication wane ne compte bi kenn du ko ki mais kenn waxu ci ci ñoom. su ko defee ñeneen ñi nga xam ne xamuñu xamuñu xamuñu kii bi xamuñu samidia kontam bi ñoom ñooy dugg naan ay rib di rey doomu jaam ñoo ñoo koy tay nag ñoo koy tay xam nañ ni ki ñii ñuy wax mu dee ñooñu deewuñu yéen yéeneen ñi too ñeen ñi dugg di naan ay rib euh, rib yàlla ko yàlla yërëm xam ngeen ni kii deewul ak lii kañ la léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw genre fa ay dara ñi nga xam ne ñoo ëppale ay ay ay ay abonné ñoom ñooy jël kon Samediel bi photo ko si je dis comme ça la couleur de Dieu s'abat sur lui un jour sa mort sera vilaine voilà c'est pas bon c'est pas bien du tout c'est pas bien Dieu va s'abattre sur Sami jàmm yàlla bu ma doon Sami Sami mii kay mi ngi def ay ñoom te kenn mënu ci dara ki kenn mënalu ko dara dom raam la tekkiwul dara kii ku dëmm la xoolal may wax muy tàcc. Samy yow rek la ñuy topp nii. il veut du buzz il veut du buzz si tu veut du buzz il n'a qu'à se créer son propre compte là où mettre ses photos mais là à vrai dire le fait de dire aïe. mais genre telle personne est décédée mais c'est pas bien c'est c'est une saloperie. lui-même il voit que les gens sont bêtes les gens s'abonnent à lui oui c'est une saloperie. Qui, comme vous ne concerne que lui, mais les autres qui restent là à rentrer dedans en train d'insulter, ça sert à rien. C'est une sale c'est ça le problème. non j'arrive pas à comprendre. déglu leen j'arrive pas à comprendre comment. parce que je suis je il peut poster ce qu'il veut c'est son compte et c'est ses abonnés. ñu xool ñu def ñoom am nañ influence. influence yi ñoo génn wax ci. ñoom si seen ñoo toog di seetaan affaire heureusement ba mën siiwu ma bu la neex reyal ku la saf yow koo rey sax mu dee ñu ne waaw mais yaa ngi rey nit ñi ñuy gën a dund ngir yàlla doo ñu bàyyi. son téléphone c'est son compte il peut poster ce qu'il moom sax mën naa dugal lu ko neex moom la engagé moo xam bu ko neexee sax nara ndax ma bàyyam mais nit ñi ñoo ko war a xam compte boo xam ne kenn changé ñu kii bi tur bi yàlla ci bind na ko ko xam nii nii comme nii am na ñuy capturé waaye doo leen doo leen wax kii mu am ay waay man mii yow yow yaa nag yow am na ñoo xam ne ñi ngi capturer ñi ngi capturer suñ capturer nañ ko dugal ñun ñëpp ci suñu compte xëy na nit ñi dinañ bàyyi. non non loolu xam nga ñan ñoo ci war a wax ñoom influenceur ñoom ñu ñuy rey nii ñoom ñoo war génn def seen manko bu saf sàpp. voilà wax si ñoom ñoo war a génn wax ñoom am nañ influence kay nañ ci war ñun ñi dem désabonné wu si kii. moo gën ne ñun ñu ciy sonn nii. vraiment ñun sonn nañ ci li muy saaga ba tey ma koy saaga. kii de duñu sa faala xam ngeen bu ñu kan daan changé mais tey dugg sax di wax. yow mënoo ruube sax da nga yaakaar ne doo mës dee di nga dee de ñëpp xam nañ la nekkoo Sénégal. doomu raam la mën ngeen ko bàyyi rek. sami ay sami sami ñëpp nit ñi saraxu nañ la ba sonn. waaw baax. moom mooy tàcc mi. Assane kañ la ci kaw moom kii moom. moom mi <laughs> day kookali mi kii. xaaral ay chocolat si live bi tamit xam naa. waaw te doo leen ko baax. moom moo ñu yëgal ci live bi moom moo ñu yëgal. moom mi moo ñu yëgal. ay kon kii junne la. pes. yéen junne la. léegi-léegi. ay sami may ñu jàmm dina nga tamit doonu lekk de bañu de ndey noonu waa léegi wuy leen ma wuy leen ma yéen ñi nekk ci live bi nañ waxante dëgg yéen ñi ku ci nekk nañ ko signalé waaye da ngeen a dañ kumpa ñun ñëpp buñ ne dañ koy signalé nañ leen ko signalé. kii ah kii. mais wax na nga dugal sa photo sa photo nga dugal. sa vidéo nga wane sa kanam lu tax doo ko li ngay mënta comprendre su fekkoon mi ngi Sénégal dañ koy mën a dañ koy mën a jàpp mais comme waaw lay doon genre aadamoo lay doon soko ñooñu nga xam ne dañu nekk extérieur kenn du leen mënal dara <laughs> non gëmuma mu nekk noonu si parce que keroog parce que keroog direct non man loolu moom na la amee waaw nga nan la amee lan autant d'abonnés compte jàmbur la jël benn xale bu jigéen la sàcc compte am nii de. ak ba pare mhm. ñu dañuy abonné ci moom ñi xamul aussi mooy sanal ñi nga xam ne xamul sax ci téléphone dañuy dégg TikTok rek di dugg ba gisee ko dee jooy abonné mais ñi nga xam nekk ñoo influenceuse yi ñoo nekk fii ak influenceuse ñoom ñoo war a dugg ñoom la ñuy rey ñun ñu ci di wax naan li baax li baax. moom a jaaxal ñu sax waaw ñun sa vidéo wala nga wax suñu yoon sax wax dëgg ne xel ñun dañ ciy bëgg a sonn nag parce que tamit ñoom la ñuy rey ñoom ñoo war a billaay wallaay parce que tey jii Marichou bu defoon benn vidéo vidéo boobu day viré ñëpp ko ñëpp ciy jot yow wuy ma gis ngeen ci commentaire yi am na ku bind ruu xaw ma ruu te mu def ay drapeau yu noir kooku ah. tamit génneew ma ko si de mu ngi ñuy saaga rek ñun ñëpp waaye ak yow de ñoom ñëpp fa yam ay dëmm lañ ñoom ñëpp fa yam gis ngeen do kii de loolu du tax di ngeen kii ay bongo man sa dugg nañ fii di ko bongoowal taxul mu arrêté kii yéen na ngeen def xanaa ko ay bongo dugg nañ fi di ko bongoowal pour mu arrêté di ko naa neexal taxul mu arrêté kii di suma luy tax mu arrêté. doomi raam la de. man man raam moom ngir yàlla moom du am fit wala bu jege saa ñu ruuxu moom bu dugal fo. vidéo la kii nee na nii tegaat nee na si kanam les imbéciles à tout à l'heure vingt deux heures. non kii kii day kookali. waa gis nga. ay waay nañ leen ko bloqué. nañ yow nañ doxal sa ndey rek yow. kii soo kii dañ koy signalé ba sonn te duñ ko bloqué man yàgg naa xaa signalé chaque jour mu signalé chaque jour. chaque jour mu signalé te bu nekkee benn nit ki signalé duñ tëj compte bi. yéen ñii di laajte yéen ay dof-doflu yéen a koy may bés gis ngeen vidéo bu mu dugal ne Marichou dafa dee ay dugg na fi. non noonu la bëree vu noonu la bëree vu arrêté leen Marichou deewul. bu dee ñoom dañoo dañoo amul sa xel ñoom dañoo déggoo ma ne ñoom ñoo amul xel seen ñoom ñoo amul xel. ñoom loo xamante ne ñoom Marichou gis ko si benn seen YouTube kooku kooku kese kay dawal bi nga recensé